mbokk yi safoo ak di ndamoo seen sit internet bi di Rafah TV ñu dikkaat ak yéen ci li gën a fës ci ay bés yi muy li nga xam ne moo xew ca Mali ay weer ñi ñi ñi nga xam ne ñoo yor doomu réew Mali sàkku dem ak kii di Ibrahima Boubacar Keïta ba tax soldaar sa daal di mujjee jël seen i ngàndaay jàmmaarlook moom jàmmaarloo yi tar ngir jëlee ko foofu ca réew Mali ak kii nga xam ne moo nekkoon premier ministre am di Bouba Cissé si guddig talaata jàpp àllarbal jile weesu euh, takk der ya nag ñoo mujjee tekk loxo ca booba réew euh, ca booba nguur ngir jëlee fa kii nga xam ne moo di Ibrahima Boubacar Keïta ca noona ñu mujjee fa tekk loxo ay kilifa yu takkoo takkoo takko ngir mën a tas boobale gouvernement ci ay weer yi lay weesu foofu ca Mali jàmmarloo yu takku ak waaye njaaxle ak ko njàkkare ñàkk ak kaaraange nga xam ne ñoo ko doon dund li waral li ñu mel di congum jihadiste moomu nga xam ne ma nga xewoon foofa ca Mali waral li nga xam ne moom lañu ñu mel ba tey ji ñu koy jànkonteeg foofa ca Mali bu amee ay matuwaay matuwaay yu ñu war a jël war nañu seetlu nu ñu koy defee ci Touba takk der yaa ngay wéyal di amal ond ak taxaw seetlu waaye tamit ak xarañte ak way gu ñu mel ngir mën a amal seenub liggéey bi nga xam ne moom lañ leen asas muy mel ni fépp sa Touba takk der yaa ngay wéyal di sàmmonteek ndigal yi nga xam ne Aly Ngouille Ndiaye tegoon na ko ci loosu sénégalais yëpp ñoom ñu mel ni dañ waaw war nañu respecté ndoo ba tax fépp fu ñu toll ñu ngi xool ak oto bu mënti romb ci corniche yi ak marché yëpp foo mën a dem ñu ngi seetlu ndax nit ñi ñi ngi euh, respecté euh, matuwaay yi nga xam ne muy takk mask ba mën a jàmmaarlook mbas mi daal di koy daanee waaye ca noonu am na ñoo xam ne ba tey dégguñu seetlu seetuñ seetluwuñ ba tey taxuñu respecté li nga xam ne mooy masque yi ñu war a takk ba tax bés bi yàlla sàkk ñu ngi leen di teg ay daan waaye di leen amande ñi tamit ñu leen di yóbbu ci poste yi ngir ngir ñu mën a wéyal liggéey bi ak ci ni mu waree police yi ñu ngi def seenu liggéey foofa ci Touba. ñu wax itam jëmale ci yi nga xam ne mooy série yi nga xam ne ñu ngi koy faral di dawal ci suñu seen télévision yi di loolu nga xam ne dëppoowul benn yoon ak suñu diine wala suñuy aada lu lu ñu mel war ñu cee bàyyi xel bu baax a baax a baax ndax mën na gàllankoor lépp li nga xam ne mooy am njàng wala am njàngale muy mel ni saa bu timis yi njaboot ki ak waajur yi ñi ngi toog ci kanam écran yooyu di suivre film yi ni mel ñu war cee mën a bàyyi xel bu baax a baax ndax li mu mën a gàllankoor ci yarub gone dafa bari lool li nga xam ne nag mooy série yi ñu waxati jëmale ci ndax dafa wëy di lëmdee fii nga xam ne mooy sunum réew